عدنان وعلى آله أهل الإحسان ورضي الله عن بقية السلف وخدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكو جولي دي بوكي taalibe yi ci ndigalu kilifa di Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yëkkati kàddu di ko ubbil rek ndax seen digg moom li ma ko doy ma ko ci seen seen diggante ndax xam ngeen ne ba ngeen dalee ba nëgg ni lépp moo ko ànd ak yéen kon li sëriñ bi di wax wa fil qalbi min ridwani fii ma ukinnuhu dañuy naan bihi inna sudura xubóoru loolu mooy li ko dal ci seen digg yéen li yéene bëgg ko wax kenn doy ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxee rek kàddum rek moo ko mën a mottali kon dañ ko ubbi rek jataayam rek mu néew lañ ci wax ndax day jataayam ndam di jataayu ndamu Sëriñ Tuubaa di jataayu ndamu sëriñ bi di wane it li Sëriñ Tuubaa waxoon wal yow ma yoon sii nii bi yow mi bi xat sama tey bi ne gàcceel na sama démb kon loolu dane fàng ba cërut woon ko amati bët na ko suñ kilifa gu baax nga laa Abdoulaye ma koy waxoon kon ci diggalu sëriñ bi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëriñ Yuusu waxe léegi ndax bi fi nekkee ay kilifaam jiitu na sax njabootuk Serigne Touba gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam nga Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbakkeem Cheikh Mouhamadou Bassir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mas amu bëgg mas amu bañ noonee la ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëm kilifaam yëpp mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa kenn ku ci ne ñim jamonoonteel ku ci ne séq naa ak loo xam ne loolu doy na sëkk firnde ci loo xam ne ab joxañ la joxañ ba taxawaayu tayam bii wane na ne kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fi mu toll tey dégg naa ci kàddoom wax ne am na ko ko mos a seer kàddu cant ci Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bi da ko ne rekk de waaye lii mu wax bu fekkee mi ngi ci yow na nga fexe ba sax ca bu nekkul ci yow tam na nga fexe ba mu nekk ci yow loolu nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax njabootu sëriñ Tuubaa gi doy loo nañ ko doy loo goo xam ne kenn xamul fu mu yem Cheikh Abdoul Ahad bañ na lu ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye positif ak dogo moo ko may Cheikh Abdul Xaadir gane ko ba tàyyi bu ma sànn si yaar si siñ yi ci ngan mu daa def ak moom sax bu agsee moom la njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moom a tax diggam ak Serigne Saliou nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Serigne Saliou séddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu yomb ndax lu ko mas a wala lu ko mas a moom da ciy jiital bi mu demee ba nga xam ne dem na ba Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmu jëma ci doy kon ñoom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci suñ bàkk Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat suñ bàkk Madina dafa Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne Touba de sët képp ku ci jub te tegu coow mu dugal suñ biir daanaka suñ bàkk Madina mi luñ ko ëppale waaye moom mii nag àgg na ci xaal boobu tey amul dara loo xam ne eh, ñi ko daa xalaat ci doomu Serigne Touba ci positif ak yaakaar te buñ xoolee jëmm ji duñ ko gis ci moom digg mag Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ne ci biir daara ja daara fa ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna may ñëpp xam nañ ne laytul xadri gii moom la defa jëwriñ ji ak mbiram yëpp kon moom ngërëm li dafa yàgg te muy loo xam ne dafa dëggu ci moom yàlla binde ko ni dund lu lu sëñ Tuubaa bëgg lu lu sëñ lu sëñ damay wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñoo mënuñ koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itam génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi ñuy def li mu toggoo ci njàngum alxuraan ak xasida lim toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem diggam ak nit ñi daanaka day na ne bis bi dara waru ci dara warutoon a xaj ci ni bi dunde waaye lépp yéene positif ak bëgg sagal rek mooy tax loolu mënu ko def kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxawu ñaari doomu Sëriñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëriñ Tuubaa kon tawféex la ñu ko sëñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njëbooru sëñ Tuubaa gi jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wu jox cër bi ko àdduna sëpp jox waaye ba nëgë ni di saataguñu ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaay boole ko juróom su fukki million ak ak lu tegal def ko àddee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir sëñ Tuubaa loole itam ba mu ko wax dafa dajale njabootu Sëriñ Tuubaa gépp waxoon ne lam la ci gën a jund mënoon naa koo jëf te kenn du ko yëg waaye dama leen di jàngal aw yoon ñépp xam ne nii moo nii ware noonu la ware ñëpp loole nag dund na ko moom digg mag Cheikh Sidi Moussa noonu la ànd ñoom mës amul bëgg mës amul bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bi tey bu fekkoon tey lu ñuy jaay la dama damaa wax ne da jënd Sëriñ Tuubaa lu waay am dala ko dala ko gën a la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy lu jaay dama ne da jënd te sëñ Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wa neexee borom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee kala ko mayoon mu jëlaat ko li nga jënd nag kala ko jaayoon taneetu la ci taneetu la ci kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma ne ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ mboole mboolem ñi bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp naa laa ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu sëriñ Tuubaa gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek xeeb nañ ko ngir xam li may jëriñ ci yoon wi ndax li ci li ci li ci gën a tuuti mooy foo gisee jëmmam rek saxee dellu ci yàlla foo gisee jëmmam saxee dem ci Tuubaa loolu doon na ko sa liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye loolu li nga xam mooy li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax ñëwaru suñ Tuubaa koo ci wétan seere seere sami seere ci sëriñ bi am na ci doo xam ne mënees koo yëkkati ci rajo di ko wax ndax loolu boo ko waxee sax day nuru dara waaye sëriñ Cheikh Mbàkkim sëriñ Saliou wax na ne wa yowma aslama jibrilul aminu ata bi man huwa fawqal kulli qaharu mualliman an islaamal fata umarin busra li ahli sama wal kulli yaxtaaru mais mooy xelaaf ak Cheikh Mahmoud Moustapha Cheikh Mahmoud Moustapha kon xam na fi mu toll ak ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon lool doon na sëkk seera te njabootu Sëriñ Tuubaa gépp gi mu ko seqal ñëpp foofu rek maase na ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd ak wér li ci dolli ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari sëriñ Aatu Jaañ day jàmbaar lool àndoon ak sëriñ bi sëriñ bi xam pësif ma xamul dogam moo tax ma tari minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi waaye loolu itam day wane ne mbiru Sëriñ Tuubaa kenn dóoru ci dara lépp moo ko yoroon boppam ndax ko xalaatoon ne moom moom moom yi di suñu aatu mën na fay jóge moo tudd weer yii ngeen jëfaat si jëf jigéen fi jëf te dara taxul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day wane kon jàmbaar amutul ñëpp suñu leen dimbale sëñ bu xaar daana ko wax jàmbaar amul kun dimbali am waaye kon yéen da ngeen am dimbalu suñu bi nag lim leen daa seer dadaa wax ne dadaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëñ Tuubaa dara jomb ko te Sëñ Tuubaa dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen nit ndamul Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne tubaab bi de damay njëkkante ñoom koo xam njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa bi ñu ko yóbbu njaarim raamoo ma siri ilaa jurbel la daal lasasi law aayeenoo sirra maa fi sayri maa raamoo ñëpp xam nañ ne la taxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii njaarim toll ci ay taax bu ñu ko fa indee ña sëñ Tuubaa xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddi sëñ Tuubaa waa wane ngeen ne sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg def ci nit ci dara mënta dox diggé diggam ak loolu da na layan ngeen seigne touba wan ngeen ndamul seigne touba kon nak na ngeen sante yalla bu baax ta xam ni ngeen di doxee itam seigne touba len ko digaloon seigne Yuusu nak yow da nga am tawfiq ndax tawfiq di moy dayri bi da doxone ñu ñeen nit and ci seen bir di tan njit baax ci suñu aatu mu def ci jéggu rëy ci taxaway bu mat sëkk boo xam dund na ko mu xam ko yow nag da nga am tawféex ndax yow suñ bee da tànnal boppam te ba mu dee tànnal boppam itam diisoo ci laaju laaju ci waxtaanu ci daa noppi rek yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aato sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuudu sama sama xel dem ci aato kon suñ bi xamoon na ne dayra bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag wane wane nga ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million ngeen amoon tey siyaare bii bi ngeen koy def bi nga koy wax sëriñ Moussa. di ko ca laaj sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi mot fukki fan ak juróom sëriñ bi tànn la bis diggante motu fukki fan juróom ngeen dajale ci ñetti téeméeri million yu tegal li mu jëysuñ te xam ngeen jëysuñ li muy tegtale ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yéen am ngeen tawfeex bu noppi. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ni leen fu Sëriñ Tuubaa xëy na ngeen fa gonte fu mu gonte na ngeen fa xëy. loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen neleen leen itam yéen ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg ma sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ko ànduloo dana leen ci ñee loolu yàlla defal neen ko tey ndax mel na ne ñu ëpp ci nit ñi gind ko nañ ci yéen ba ca desit waxoon waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen dajeet ji seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu jóge Sëñ Tuubaa la loolu doon na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax te xam ne Sëñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku mu defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na xam ne am nga defaruk àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoon suñ boom ne ko wax di xawaay jëli si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nett li ci rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca ca gànnaar ca déwén seli sëñ bi ñibbisi ne nañ ma wool fere yépp ñu daje ñu woor ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu àlliyu seen ak àlliyu wool ma fere yi ñu woo ñëpp ñu daje sëriñ bi ne àlliyu limal ma ci yéen yi am loolu solution bi moo ko daan nettali suñu àlliyu seen di lim gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa ba jeexal mu ne ko xam ngeen lu ma ci jubloo mooy dama bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne digg naa leen ko fii tey ni ngeen di gise lii ma leen di bëgg di ngeen ko gise daane suñ borom xamal na ma ne balaa négé ni si déwén danañu fekke Sénégal ci ak ci yéen ci jub nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu may dig ci àdduna bu ëllëgee deen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ngeen ba keroog ngeen fi jóoy kenn du faatu ci kàttanug yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi ñu bisu senegal ci Thiène Jolof mu door a faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ Tuubaa lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye Sëñ Tuubaa dara rëy ndax nekk na ca gànnaar am kenn ci bokki taalibe yi ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiyee dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiyee ju ko kenn mësa jox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom ñëw fekk sëñ bi ci ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sëñ bi daa ko doon si tànk mu ko dama laa siyaare si woon bëggoon laa jox addiya addiya ji nag mu ngi toll ci juróom-ñetti junni sëñ bi ne kenn waxu ko dara dugg ci biir na suutu mu ginnaat daal ne anal anal ndaw yi ak ma mooy sëñ ma ndumbe fekk sëñ ma ndumbe yónnee na ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko anal doon say tànk mu ne ko sëñ man Ahmadu Ndumbe moo yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne ko àddiyee mu ne ko lu mu sol mu a ko xaw ma ko ka indi woon loola sëñ ko àndal ak moom ci biir kees ñenn wàññi ko ba xam ñaata la bañ demee ñaar fukki junni kon sëñ tontu na ko kon nañ xam ne sëñ lépp lu ko waaye di defal rek yéeg ne moo la ko defal liñ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëñ Tuubaa wax ne kooku wax ne dafa bëgg a teral gani gani sintuwaay Tuubaa delloo ko njukkal ca njaareem rey ay nag yu baree bari ak i ak lam man lépp séddale pension ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmm gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeroo ko li jëf sëñ bi ne ko alal loo ci jubloon mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëñ bi ne ko mënu leen ko kon yàq nga si jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg ne maa leen ko defal kon nag foofu lañuy ñuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér te sëñ Tuubaa tàbbal ñu ci lam boo xoo ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bala maa jeexal nag eh, sëriñ bi xam ngeen bi muy ñëw